asalaamaaleykum waa Al Hibaadatu Wal Xidma man la docteur Ousmane Gueye chirurgien ophtalmo-physien bu Touba maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant ci liggéey bu rafet bi ngeen def fas yéene ñëw tey nag andi leen waxtaan woo xam ne ñu koy jëmale ci feebar yoo xam ne sonal na askan wi lool ndax liñ koy wax dafa bari liñ ci publicité dafa bari liñ ci jàmbat dafa bari ba tax na ñëpp mu tiital leen ñëpp jàpp jàpp ne leen muy feebar yoo xam ne nag dafa am. waaye ku ko xàmmeewut tam mën ngaa nekk ci faj moo xam ni bokkul ak faj ma ca war ndax seet ga ca war ngir xam loo dal dafa dese am yooyu feebar mooy feebaru suuf yi muy feebar yoo xam ne nii docteur yi mu njëkk sax dañ ko boole woon ci lañ daan wax feebaru gàcce yi maladie honteuse ndax ku mosaan a dal da am jafe-jafe ngir dem ñu seet ko yooyu lañ fas yéene indi waxtaan tey bi ngeen ci gën a xam di hémorroïde lañ gën a la ñuy gën a waxtaanee xam naa ngir mu leer ci bopp askan bi yëpp. kon mbokk yi waxtaan wi nañ ko daan def rek lañ ko fas yéenee doxalee ginnaaw bi ñu nuyoo waxleen leen lan wax leen waxtaanu tey mu jëm ci feebaru suuf yi dañ leen limal feebaru suuf yi nga xam ne moo am bu loolu jàllee ñu waxtaan ci lan mooy hémorroïde baat boobu ñuy dégg mu di ak cër lan la jëriñ ci nit bu loolu jàllee ñu jukki feebaru hémorroïde wax leen mooy lan. ban jeexital la mën a am ci doomu aadama ak li ñuy wax di ko lëkkaleeg wàllum biir kër ndax am na wala déet su loolu jàll ñuy wax kan la mën a dal feebar immunité boobu su loolu jàllee nañu doog a dikk na ci yeneen feebar yi nga xam ne dafay dal nit ci suufam te bokkul ak hémorroïde te ñu di ko jaawaleeg moom ñu mën cee wax li ñuy wax fissure wala abcès wala fistule wala cancer danañ ko indiwaat ci baat wolof yi bu loolu jàllee nag. ñu wax nan la ñuy seete feebaru suuf yooyu ak nees koy mën a ràññalee ba xam ne lii feebaru nàngam la doog ñëw nag ci wàllu paj mi fajum hémorroïde fajum abcès ñu naan ko tàpp fajum fissure muy ab xoteeku fajum fistule di ab bën-bën bu la loolu yëpp jàllee nag ñu doog ñëw nag yi nga xam ne mooy jeexitalu feebar yooyu bu nit ki bu dalee nit ki faju ko ak faj mañ koy faj ndax mën naa indi ci moom ab jeexital wala déet kon mbokk yi yan feebar mooy dal nit ci suufam ba mën koo sonal ba tax muy dem di faju ji ak ku mën a dem seeti ko nag muy docteur ba wala fajkatu cosaan yooyu ci liñ ci xam bari na lool waaye ci gën a ràññeeku mooy bi nga xam ne moo gën a sonal nit ñi xay na ndax ci dañ koy dégg lu bari ba ñëpp miin baat bi mooy li ñuy wax feebaru hémorroïde bu loola jàllee am na lu ñuy wax abcès anal loolu ak taab la guy dal nit ci suufam comme ni taab yëpp di bu loolu jàllee taab googu bu fekkee fajuñu ko mooy dem ba bënnal boppam su bënnee bu wér na bàyyi fa ab bën-bën boo xam ne day tooy fu mu toll ñu di ko wooye fistule anal bu wóotee nag ak fistule yi dal jigéen ñi ci wàllu am doom bu loolu jàllee mu ñëw ñu ñëw ci feebar bi ñuy wax fissure anal nga xam ne ab fett fett la boo xam ne nii day mel ne fett fett bi dal nit ci gémmiñam bu sofee bu loolu jàllee am na ci feebar boo xam ne moo ci gën a waar muy feebar bi ñuy wax cancer cancer ku nekk dégg na baat bi kon yooyu mooy feebar nga xam ne mooy dal ci soom ci gën a ràññiku am na ci yeneen yoo xam ne nii daanaka bëriwul fii suñu réew mooy feebar bi nga xam ne ñiy jaxasoo ci jaxasoo wu dëppoowul rek li lislaam santaane bu bon woowu ñuy bañ ñoom lay dal lu ñuy wax maladie vénérienne kon nag mbokk yi ñu fas yéene ñëw ci baatu hémorroïde lan mooy hémorroïde ndax ñëpp ko am ndax am na lu muy jëriñ ndax am na lu muy wàññi yit baatu tubaab la kon du wolof baatu tubaab boobu ñuy wax hémorroïde nekk ab cér la cër la boo xam ne dafa nekk ci suuf doomu aadama te ci suuf képp lay nekk fa muy nekk ci doomu aadama bu diggante bunt ba ak fam mën a yem ci nekkin ëppul ñetti centimètre kon nit ki su dugaloon baaraamam ci suufam bu ci da bu ci balaa baaraam ba sës romb na fa nga xam ne fa la hémorroïde mën a dëkk kon hémorroïde mënta am feneen fu foofu dañ ci dikkaat du nekk ci biiru nit du nekk feneen hémorroïde boobu lan la ay mbuusu deret la mbuusu deret yoo xam ne dafa am lu muy jëriñ nit dafay def li ñuy wax la continence fine maanaam nit ni ko yàlla bindee nga xam ne day lekk ci kaw deme ci suuf am na ay élastique yu tëj suufam ba dem àll yi man faa daje lu yàgg mu dog ko yëg ne saf na mu dog a dem ci wanag wi ngir génnee waaye nag ginnaaw dem àll yooyu itam am na leen loo xam ne dafay taxaw di xaar mooy ngelaw ngelaw boobu nag téye ko daa yombut élastique bu mënu koo téye ngelaw loolu na moo tax suñu borom ci xariñam mu génne ay muus deret yoo xam ne moom la ñuy wax hémorroïde mooy ñëw mottali suuf gi fatt ko ndax muusu deret yooyu mën na nit mën na ci am ñett ba ñeent ba juróom ba juróom-benn ba lu ko ëpp ñooy roofante ne ay baaraam yu roofaloo fatt suuf gi ba ngelaw li génn feek nit ki yittewul ci boppam jël décision ne dama koy bàyyi mu dem kon hémorroïde lu am njariñ la ci nit dafa bari deret ba nga xam ne itam des na fa jaarale garab loolu mooy waral nit ki di ñëw léeg feebar ñi di bindal ko lu ñuy wax suppositoire muy garab gu ñu dugal ci suufam lañ ca juble mooy bu ñu ko tegee ca suuf ga foofu comme daa bari deret dereja day daal di manque deret ji tel koo jàll ci yaramam mu daal koy gaaw a faj mu gën a gaaw fuuf naan ab doom kon mbuusu deret yee nga xam ne ñoo xam ne am na fa ñu koy wax hémorroïde moo tax docteur yi bind ay suppositoire hémorroïde boobu ci boppam nag nan la bindoo dafay mbuus der yoo xam ne sutitu der yi ñuy wax artère nga xam ne moo jóge ca xol ba ñett dana wàcc ci suufu nit ñett yooyee bu ci nekk dana fa tas dana fa def benn mbuus boo xam ne ñaari siditu deret danañ fa jógewaat li ñuy wax benn war a delluwaat deret mu wuti xol ba foofu mbuus yooyu ñuy tasee nag ñu koy wax plexus yooyee mooy waral dégg nga muy taweeku léeg dem ba joxe li ñuy wax feebaru hémorroïde dañ ci dikkaat bu baax a baax kon hémorroïde yu am njëriñ la cër la bu bokk ci nit nekkul feebar. kon nag ñu ñëw ci feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax feebaru hémorroïde ñun ci médecine du ñu wax hémorroïde dañ naan maladie hémorroïdaire maanaam hémorroïde bi dafa wéradi feebar boobu niñ ko xaymaa dañ ne doomu aadama yi nga xam ne am nañu ëpp juróom fukki at daanaka koo boo leen jëlee genn wàll gi yëpp am nañ feebaru hémorroïde. am nañ feebaru hémorroïde kon cër bi ñëpp ko am waaye feebar bi la ñuy waxtaane lan mooy waral léegi nit di am feebaru hémorroïde bari na lool ay théorie yu ci indi benn bi dañ ne mbuusi deret yooyu ma waxoon nga xam ne su ngeen xoolee ci dessin numéro A bi dégg nga da di gis ma dessiner ay mbuus su deret yu nekk ci suufu nit ki leneen li toog nit li ma li ma sëpp nii mu mel ne daalu juutu loolu mooy suufu doomu aadama li ko li jëm ci suuf ma def deux trois centimètres loolu mooy li ñuy wax canal anal donc fi hémorroïde di nekk foofu képp la nga gis mbuus yi ni mu ci nekkee nga gis mbuus bu ma bind hémorroïde interne H interne am beneen bu ma bind H externe muy hémorroïde externe dañ ci ñëwaat bu dessin numéro B boobu jàllee nag A boobu jàllee kon dañuy jël dessin numéro B bi nga xam ne boobu yeneen feebar yi lay waxtaane boobu dañ koy denc ba ci kanam yi doog ci dellusiwaat doogu ñëwaat nag ci dessin numéro C bi nga xam ne waxoon naa ko ci commencement bi dalay wan sidit ñetti siditu deret yoo xam ne ñu ngi jógee ci hémorroïde yi war a yéeg dellu ca xol ba moom lañu moom laa tuddee VMI VSM VII ak ci suuf fi ma defoon anus bind deux trois centimètres da nga gis ma bind ci côté ndeyjoor ba lu ñuy wax plexus veineux mooy mbuus mooy fi deret ji tasee def ay mbuus yoo xam ne ñoom ëllëg ñooy dem ba taweeku joxe li ñuy wax feebaru hémorroïde kon ci wàllu sutitu deret loolu lañ jàpp ne mbuus yooyu ma dem ba yolom indi li ñuy wax feebaru hémorroïde bu loolu jàllee ñi wax li ñuy wax cause inflammatoire nit ki suufam mën na jekki-jekki mel ne lu xaw a lakk loolu mën na indi feebaru hémorroïde boobu am na li wax cause mécanique di ko waral mooy am na ñoo xam ne dañoo bindoo seen siditu suuf teen ba nga xam ne bu ñu demee ci wanag wi du ñu mën a gaaw a génne fokk ñu nekk fa di nalu lu yàgg nalu googu ñu nalu nag mooy mbu mooy puus mbuusu deret yooyu ñuy wax hémorroïde mu daal di génn daal di bucciliku commencé di lang beneen bi itam mooy biir boo xam ne nii dafa xaw a fees fees ngir jigéen wérul la fees fees ngir feebar ngi ci biir fees ngir dafa seere ba biir bi rëy yooyu itam bokk na ci yi nga xam ne dafay waral kon mbuus deret yooyu comme daa féete suuf pression boobu ñu koy teg mën ko pousse mu daal di génn beneen bi ñuy wax mooy ah, li ñuy wax cause dégénérative mooy koo xam ne dafa dem ba màgget nga ak màgget mooy war yaramam lépp yolom mbuus yi amatul ko téye téye bu baax mu daal di génn mën a lang bi ci topp mooy li ñuy wax cause ci biir famille yi am na ñoo xam ne hémorroïde dañ koy donante nga xam ne bu ko bu ko waajur amee mën na ko wàll ay doomam ci ndono am na ñuy wax cause hormonaux mooy dundinu jigéen mu nekk jigéen wéru biiram da xaw a diis ay siddiitam ak soom xaw a yolam ndax li circulé ci yaram ñu di ko woowee hormone yooyu bokk na ci yolomal mbuusu deret yooyu ñu wax hémorroïde ba man koo indi feebaru hémorroïde am na ñu wax cause environnementale mooy li nga xam ne mooy anam bi ñu wër lekk gi ñuy lekk comme ñun senegal nga xam ne ceeb la ñuy lekk ay pat ay mburu dégg nga di lekk ay weex yu saf ay kaani yooyu yëpp bokk ci li nga xam ne dafay indi kon feebaru hémorroïde bu loolu jàll na kon ci hémorroïde boobu ñuy waxtaane ak feebaru hémorroïde ñun ci wàll médecine dañ koy classé dañ koy def ay étage nit ki day ñëw bu fekkee yëgul dara ci yaramam kenn boo ko seetee doo ci gis dara day jàpp ni moom mi ngi dëkk ci suuf fi ñuy wax rez de nit ki mën na jekk-jekk yëg ci suufam luy ñamu ñami mu dem hôpital wala muy wakkutu dem hôpital ñu seet ko nekk ko danga am feebaru hémorroïde boobu la wax grade 1 mu nekk ci premier étage bi boobu ci gàttal mën nañ ko wax rek ay conseil ne ko moytu lii moytu laa danañ ci dikkaat daal ne ko kon jëlu nga naan benn garab bu fekkee léegi nag romb na foofa de yéeg deuxième étage def lu ñuy wax grade 2 nga xam ne nit dana la man daal su may demoon nag dafay am luy génn sama suuf di làng ma bi ma ko làmbi mel ne mbuus su ma noppee mu delluwaat loolu médecin bu ko seetee dafay daal dëggal ne kon yow da am feebaru hémorroïde yaa ngi ci li ñuy wax grade 2 boo itam ñaare dañuy jox nikki garab wala ñu jox ko ay conseil waaye foofu lañ cay yem bu fekkee yenn tànk nit ki na mën na dem ba mbuus yooyu suy dem war ak mu génn waaye su noppee fokk mu ñoox kook baaraam ngir mu dellu loolu su ko deful rek day des ci biti waaye bu ko ñooxee dana dellu kon su boobaa bu dikkee bu ñu ko seetee te itam léeg-léeg mu toq toqal tuuti deret buñ ko seetee dañ naan ko yow kon yaa ngi grade trois foofu nag dañ naan ko ah yaa ngi ci frontière bi na nga moytu lii na nga moytu lii na nga daan garab yii su def respecté loola mën naa dir siwaat ci ñaari bi étage ba premier étage ba far fàtte ko bu fekkee góorgóorlu ci nag day daal di yéeg étage bu mujj bi bu yéegee ci étage mujj bi nag muy grade 4 foofu mooy ni ki nga xam ne daan la sama suuf gi su ma demal ba mu génn du ko mën a delloo di si ci biti sonal ma lool ba daanaka du ma mën a toog beneen bi itam mu lee signalé saa bu ma demee ci wanag wa dara ji dinaan toq toq toq ba damay tiit wala léeg dañ mel ni ab robinet buy serati yooyu nag bu xasee agsi foofu lañ naan ko kon nag agsi nga li ñuy wax grade 4 foofu nag bu fi agsee li nga xam ne moo ci gën moo ñu opéré hémorroïde boobu liñ ci opéré lu néew la mooy kii yéeg-yéeg ba ci grade bu mujj ba lii nag mën na nekk grade 3 naaj bu ndaw naan ba muy def ak saa bu génnee mu dugal kook loxoom mu déranger ko ba mu décidé ne man daal lii man mu mën a dimbali ma ko moo ma ko gënal kooku tam bu boobaana yoon la ñu opéré ko donc opération grade 3 boobu rek la ma nekk ak bu ñuy wax grade 4. fii nag lay taxawee ci wàllu hémorroïde boobu. ngir wax ci man ci kan la mën a dal kan la mën a dal bala ñoo gën a xuusaat ci feebar hémorroïde nu ñu koy seete ak nu ñu koy fajee mooy dessin numéro D boobu moom ay mbind rekk la gis ngeen ma bind ci yu bari dugal ci biir ay point def kii kan kan lay dal kon ki muy dal des koy wër ki muy dal kan la nee naa jigéen wérul ndax waxoon naa ko ci tàmbali ba biir ba na muy feese mbuusu mooy suufam day mujj yolom ba mbuus yooyu seere bi muy seere ak diisaayu doom ji ak buy matu loolu moo koy puus mu génn kon hémorroïde jigéen ñi wérul la ëpp lu muy dal yokk naa ci enseignant enseignant nag mooy jàngalekat ñaari façon jàngalekat am bii taxaw ak bii toog bii taxaw mooy li gën a xam ci école moderne yi nga xam ne da taxaw muy ustaas bi wala jàngalekatu école française bi taxaw yor crédit bind enseignant bi toog moom na gën a xam ci fii muy sëriñ daara nga xam ne mën naa xëy toog ay waxtu waxtu yoo xam ne fa mu toog du fa jóge kook itam hémorroïde yomb na ko bind naa ci beneen bi ñuy wax homme de tenue mooy ñi ñu sol tenue gendarme yeeg policier yeeg gardien sapeur képp koo xam ne sol di taxaw ay waxtu yu yàgg beneen mi yokk ci sëfoor koo xam ne toog ci oto dawal fii ba Tambacounda fii ba Ziguinchor dem fu yokk naa ci li ñuy wax tailleur mooy ñawkat yokk naa ci li ñuy wax vendeur jaaykat bu nekk ci njóobentaay kat di jaay jën fa muy toog daanaka di jaay fëgg jaay itam mën na faa yendu du fa jóge benn yoon yokk naa ci bi ñuy wax chirurgien comme ñun ñi nga xam ne dañuy opéré dañuy taxaw ay waxtu yu waxtu ay juróom waxtu juróom waxtu tiim malade feebar boobu itam lu ñu yomb la yokk naa ci li ñuy wax caméraman mooy ñi nga xam ne lañuy filmer ñoom taxaw gi ñuy taxaw di filmer fu ñu toll loolu tam mën na leen a yokkal feebaru hémorroïde yooyu ci gën a ñëwaat bu ma jëntal sax far li ma mu yàgg ma ne kon tout moom daanaka daal kon feebar la boo xam ne nii mën wax ne ñëpp la maa li ko waral nag kon mooy ñii ma lim toogaay bi ñuy toog walla taxawaay bi ñuy taxaw day waral seen deret di taa te mbuusu deret yooyee ku bari su ñëpp bu ñu bàyyi xel léeg-léeg soo voyagé voyage bu gudd walla nga yenn toog ci ab séminaire walla yenn toog ci bâche bu ñuy bu ay jàng nekk danga nga yëg ne boo fa toogee lu yàgg yàgg yàgg. soo jógee si tànk yi dafay xaw a galt day xaw a gonflé ba bu fekkee marage ki gis nga sol wala chaussure fermée léeg-léeg pour nga dugal ci sa tànk sax day xaw a jafe galt googu muy galt ci sa tànk yi nag noonu lay galt ci mbuus deret yooyee kon loolu rek mooy waral ñii ma lim ma wax ne ñoom feebar hémorroïde di leen yomb ndax taxawaay ba ñuy taxaw wala toogaay ba ñuy toog mooy waral mbuus deret yooyu di guux ba fees dell lool nag bu ñu koy def di def bu yàggee kon mbuus yooyu mujj yorom ñu daal di am feebaru hémorroïde ci loolu nag kon mbokk yi ñu dugg ci nu ñuy faje feebaru hémorroïde bala see wax feebar nag mooy dëggal jàngoro ba xam ne dëgg la hémorroïde benn rajo mun ko seet bu dul rajo suuf du analyse du échographie du scanner du beneen rajo rajo suuf képp boo xam ne raakol lay doon muy dugal ci suuf nit ki mu ànd ak caméra mu mën a yër ci raakol bi gis ko wala mu xool ci caméra bi transfert image bi ci télévision jàkkaarloo moom malade bi mën koo gis loola képp mooy rajo bi nga xam ne mees na ko def ci hémorroïde kon nit ki sax mën naa faj feebar hémorroïde ci docteur yem sax ca seet ba képp ba du àgg si rajo boobu waaye suñ ko mënee am nag moo gën li ñuy wax aniscopie anirectoscopie wala rectosigmoïdoscopie wala coloscopie yooyu ngeen dëgg yëpp ñu naan scopie scopie ay rajo la yoo xam ne day wane suuf nit ki ban jàngoro moo ci nekk. mënees na ko nag di yéegal di yéegal di yéegal ba ci butig gu mag moo waral tur yi wute noonu loolu nag bu noppee nag jëm ci wàllu faj mi kon li jiitu ci faj mi mooy dafa am la ñuy wax règle hygiéno-diététique nit ki fokk mu xoolaat na muy dundee mooy bépp lekk boo xam ni soo ko tibboon taf ko ci miir bi boo xëyee fekkaat ko fa booba lekk day yokk seere te boo seeree day yokk day indi hémorroïde feebaru hémorroïde mooy pâtes yeeg spaghetti macaroni beignet mburu ceeb xeeti lekk yooyu yëpp kon nit ki su bëggee faju war na moytandiku lekk yooyu gën a lekk ay furi ay légum ak lépp loo xam ne dafa am càmpoor lekk yooyu dafay bokk ci li nga xam ne day dindi seere ba mën na ko dimbali muy benn ñaar bi nit ki war na naa ndox mu baree baree bare mu mar ak marut su xëyee war na naan ndox lu bari waaye wut a toog bay mar carrément comme ñun Sénégalais ni ñu mel daa di naan ndox fu mu toll su ko defee butit gu magam di tooy loolu li ko waral mooy butit gu saa boo xamee ne sa ndox soxla na sa yaram soxla na ndox foofa la koy roote ci misaal day mel na nit ku amoon machine segal def fa gerte ne soxnaam saa boo soxlaa daw lin demal nga nal ko bu koy nal di ko nal bu yàggee dana mujj ràkkal yow ko nga fay nekk ko nit ki su dul naan buti gu mag googu yaram bi saa bu soxlaa ndox fa la koy roote bu yàggee kon ràkkal képp fay des kon nit ki war na naan lu bari muy ñaar ñetteel bi nit ki war na fu mu toll bàyyi xel ne saa bu amee ajo da ko war a doxi lum la fekk nga di ko def loo jàpp-jàpp-jàpp soo ko mënee bàyyi bàyyi ko nga dem ci wanag wi faj sa ajo bu fekkee laa fekk ci xat-xat boo xam ne mënoo dem boobaa nag na ko bàyyi xel ba heure boo jógee ci xat booba nga daal tey dem même boo ko yëgul loolu mooy li nga xam ne mënut a ñàkk mu ñetteel bi ñeenteel bi mooy nit ki jéem a jàngalaat aw yaramam ndax am na ñoo xam ne ci seen bind du ñu yëg lu bari saf dem wanag kon nit ki dafay jàngalaat yaramam ci saa bu xëyee bu yeewoo rek dem ci wanag wi bala muy tëdd mu dem ci wanag wi loolu su koy def bu yàggee yàlla mën na ko dimbali saa bu yeewoo te yëg ko bala moo tëdd tëddati mu yëg ko loolu moo gën ci faj mi garab yi ñu naan mbokk yi kon nit ki bu amee abcès anal muy taabu suuf googu su ko gaawut faj bu yàggee da koy def li ñuy wax fistule anal maam su bëndalee boppam ba dem ba wér nag bu demee mu wér ba defee ne am na jàmm de daal di def nag li ñuy wax fistule anal mooy lan am pax mu muy bàyyi ci suufam nga xam du nekk ci ci suuf ga noonu carrément waaye ca pegg ba fa lay def as mbën mbën su ndaw soo xam ne daal moom day seetlu ne léeg-léeg mu yëre suufam tax lu lu xaw a xeeñ walla loo xam daal du xam mu doon rawatina bu fekkee biiram maanaam dafa xaw a euh, ndoxe biram daa xaw a daw foofu la koy gën a seetloo saa bu ay dem àllam ndoxee da koy seetlu loo xam ne day mel ne luy xaw a toq ci yére suufam xaw ko taqal loolu la ñuy wax fistule anal fistule anal na dafay mel ne ab big ni mu bindoo am ñaari pax big bi ci bam wow koŋŋ dem pax mu ne ci bitti moo xam ne sa bët waaye nit ki xam ne ci biir am na leneen lu fa xew te moonte ci biir am na leneen lu fa xew mooy beneen bën ba mel noonu ma nga ci biir ñoom ñaar am na lu leen lëkkale loolu la ñuy wooyee trajet nga xam ne wow gi mu wow mel ni big def pax ci biir def pax ci biti moom nga gis ci dessin numéro G bi ma bind ci wet gi fistule loolu mooy waral bën-bën boobu du mën a wér mukk nit mën na ko wér fukki at ba ñaar fukki at te du moom loolu amul beneen façon faj amul ñaar amul ñett amul ñeent benn la am ci wàllu médecine mooy des ko war a opérer parce que tant que opéré yu ko nit ki day dëkk ak moom ba faaw te loolu tam da koy jox ay sobe andi ko ay jafe-jafe ci wàllu xalaat fu mu toll ba yeneen yëpp conséquences yi mu wax ci wàllu saa bu nit jaaxlee mën na ko caa dal. loolu la ñuy woowe fistule anal nga xam ne maa as ab bën-bën la ñëw nag kii nan la ñuy seete hémorroïde ak yeneen feebaru suuf yi bu ngeen jëlee dessin numéro F dama dese ab cercle bu mel ne montre montre aiguille bind ci kaw 12 heures 3 heures sa ndeyjoor 6 heures ci suuf 9 heures ci côté càmmoñ bi day mel ne kon ku jàkkaarloog montre bu aiguille bu ñuy seet nit dafa am nu muy tëddee bu ñu jàkkaarloo moom dañuy jàpp ne ne fi féete kaw foofooy midi fi féete suuf mooy six heures fi féete ndeyjoor mooy trois heures fi féete càmmoñ mooy 9 loolu langage médical la langage militaire la itam loolu li ñu ci jublu mooy su ma nee am na paquetu hémorroïde ci trois heures sama moroomu docteur bi nga xam ne gisul woon malade bi sax dana xam à peu près fan la nekk loolu lees ci jublu léegi nag loolu nees di seeti nit ki ñu baal ñu nag. ndax seetum émeri xaw naa ñàkk kersa waxi sëñ Samba Dia ci diggante docteur ak da ciy feeñ lool yaakaar naa ñu bari dégg nañ ko lii ma dessin ci suuf def lu mel ne ay jëmmu nit ñetti dessin bind ci wetu ndeyjoor gi lu ñuy wax GP DD ak DL façon tëddin la ngir seet nit ki ci bépp feebaru suuf bu mën a am bi njëkk ma bind ci GP mooy position bu ñuy wax génie pectoral mooy nit ki dafay sukk ay bëti woomam ay tànkam xaw a làng catu taabal bi dënnam tege ci kaw taabal ji ku xool dessin bi la nga xam ni ma bëgg a wax su ko defee kon fa féete kaw mooy nekk midi fi féete suuf nekk 6 heures fi féete ndeyjoor nekk trois heures fi féete càmmoñ nekk 9 heures nit ki itam loolu bu ko génnee mënees na koo wala boog bindam mënu ko may mu mu mu tëdde noonu mënees na koo tëdd mu jaaxaan mu bank ay woomam tànk yi tege ci kaw taabal ji loolu ñuy wax moom laa bind DD muy décubitus dorsal nga xam ne su boobaa kon midi day féete suuf waaye nag toujours bu ñuy wax ne midi wala 6 heures wala trois heures dañuy wax ci nit ki nan la tuddee nan la tëddee woon ndax dafa jaaxaan wala dafa sukkoon wala déet bi ci suuf ma def el mooy décubitus latéral boobu dañ ci wane nikki ki ne dafa tëddee wet comme tey ci la masalam tëddee wetu càmmoñ banque ndigam banque ay wóomam loolu position boobu su ko defee kon ba léegi nit ki suy wax fa fa fa fa fa jàngoro ji nekk ni midi la nekk wala trois heures wala 6 heures wala 9 day wax ne kon malade mi ngi tëdd woon position sàngam façon ñetti tëddin yooyu moo am ngir ñu mën a seet nit ci suufam su boobaa nag docteur dafa am làmp bu leer tiimale ko ginnaaw suufu nit ki mu di ko leeral bu baax mën a xool li muy xool. mu ay gan jël loo xam ne day rattaxal ay baaraamam lu mel ne saabu wala li wax ay gel bu ko ci diwee waxtaan ak nit ki ci lan la ko bëgg a seetal ndax su mi sa sa sa sa sa sa sa yére kat yombul su boobaa nag bu ko expliquer li mu war a seet lépp wax ko nu mu koy seete ci lay jël baaraam teg ko ci buntu suuf gi naxante moom ndànk bu dugalee tuuti baaraamam rek dana ma a daj lam fay làmb xool fu mu cosaanoo xool dëgëraay ba xool nooyaay ba ba xam am na pax wala metti na am na dëtt wala am na am na bën-bën yooyu yëpp mën koo làmb su paree génnee baaraamam xool est-ce que taq na derek wala ay ñandaxit wala xeet yu mel noonu su ko defee su boobaa ci lay mën a trouver ni kii feebaru sàngam la yor nga xam ne seet boobu rek daanaka mën si cee sukkandiku daanaka trouver jàngoro ji bu boobaa nag bu ñu noppee mën si caa yokk ay rajo ak i ngir gën a firndeel la ñuy seet waaye seet bi su amul rek faj faj ba tegul ci yoon. fànn faj boobu itam am na ay garab nag li ñuy wax régulateur du transit garab la yoo xam ne nii ak ñuy wax mucilage nit ku su ko yor di ko naan dafay yolamal butitam ba na muy demee mu neex dana tax itam la mu lekkoon du taq ci buti gi taqin woo xam ne nii wàcc ga dafay yeex yooyu garab mooy yi nga xam ne moom la ñu bind. bu loolu jàllee am na ñuy wax médicament phlébotonique ñi naan ko vénotonique garab la goo xam ne nii surtout deret yi nga xam ne mbuus gi dafa yolomoon moom lay renforcer ngir mu gën a dëgër loolu moo waral nga gis ne garab yooyu ñuy bindal nit su amee hémorroïde dañ ko bindal nikk nit ki nga xam ne sax ay tànkam dafay gàtt su toogee toogaay bu yàgg ndax waxoon naa ci tàmbali ba ne yooyu yëpp li ko waral mooy toogaay bu yàgg bi ak sa sidditu deret day bu mu mujj dafay taaweeku garab yooyu la ñuy wax ay vénotonique siiw nañ lool dégg ngeen ci ñuy wax ay daflon dégg ngeen ñuy wax ay cyclotrophore yooyu yëpp ci garab yooyu la bokk bu loolu jàllee nag bu garab yooyu jàllee mës naa jàll ci faj bi ñuy wax traitement endoscopique nga xam ne kii def rajo suuf bu ci xarañee te jàng ko mën na ñëw jël benn hémorroïde mu pikiir ci loo xam ne daf koy wowal daal koy rey xoos ko mu wadd loolu la ñuy wax injection sclérosante technique boo xam nag ñi ko mën bëriwul bu loolu jàllee moom itam kooku def rajo boobu rajo suuf mën na def li ñuy wax ligature élastique nga xam ne lay jël benn paquetu hémorroïde takk ci élastique boo xam ne da xoj ca baat ba ca gàjjan ba su ko fa xojee dal di jàllatul bu yàggee hémorroïde bi daal di dee daal di wadd mën nañ def itam li ñuy wax coagulation ak électrocoagulation wala ñuy wax euh, kii euh, traitement par le froid la cryothérapie nga xam ne dañuy jël lu sedd guy bu ñu ko ci tafee mu wowal ko def ko comme glace bu yàggee mu wadd mu wadd wala ñu jël loo xam ne dafa mel nu koy lakk loolu yëpp ay technique yoo xam ne nii li dañuy wax radiologie interventionnelle moo koy def nga xam ne maam defkati rajo ñoom ñoo am xaar ñu mën a jël ay traitement di ko ci def ca lañ teg seen bët bu yooyu yëpp jàllee nag yooyu nag moom bii ma wax nag moom bariwul Sénégal bu yooyu yëpp jàllee nag ci la ñuy accès ci li ñuy wax chirurgie nga xam ne opération la opération boobu mën am ci ñaari façon nit ki hémorroïde bi dara ji woy biir daal di metti lool ba sonal ko mu ñëw ci cadre urgence su boobaa chirurgien bi day ñëw jël paquet ba nga xam ne moom moo ko sonal mu ubbi ko génnee lu mu dere woo nga xam ne dafa dee muy deret ju dee mu daal di am jàmm bu fekkee itam yéeg na bu fekkee itam du kooku waaye am na hémorroïde di ko sooxaale ba agsi ci ñeenteel bi étage bi mu waxoon muy grade 4 wala grade 3 mu sonal ko mu bëgg a tàggu moom su boobaa nag chirurgien bi daf koy opérer opération boobu du dem rek di dagg lépp di sànni déedéet dafa am nu ñu koy defee dafa am yoo xam ne moom lay dindi ci moom am yoo xam ne du ko jaral laal da ko fay bàyyi boo ngeen jëlee dessin numéro numéro numéro G ñëw naa ci ñeenteel bi dessin ci digg bi ci suuf ñeenteel bi dama ci bind hémorroïde boobu dessiné naa ay paquetu hémorroïde yu baree baree bari yoo xam ne ñu ngi nit ki yi ngeen xam ne moom daal def bula dafay wane ne kon ñun bu ñu koy opeere du ñu dindi lépp dañuy seet ñaar ñett ba ñeent yi nga xam ne ñoo ci gën a rëy gën cee fës ñi dindi ko bàyyi fa yu sew sewaan ya ne waxoon naa ci tàmbali bi ne hémorroïde du feebar cër la bu nekk ci nit bu am njëriñ lool ndax moom dafa bokk ci liy def li ñuy wax continence fine li tax nit ci ci boppam ngelawam du rëcc bokk ci li nga xam ne itam bu ñuy faj nit ki ci traitement te munta naan wala yooyu bu ñu fa dugalee suppositoire mbuus dara yooyu mën a naan garab ga am gi mu am njariñ moo tax dee su opéré hémorroïde xoos ko mu jeex takk technique yooyu amoon na ci lu mel ne réew yu mel ne Amérique ndax ñoom dañu xaw a radical waaye yooyu tey jii kenn defatiwu technique bi nga xam ne Sénégal moom la utiliser bokk ci technique bi gën ci monde bi mooy technique bi ñu wax Milligan et Morgan te waa Angleterre génnee ko boobu ñun moom la ñuy def fii Sénégal boobu nag suñ la ko defalee te lañ la conseillé woon ci wàllu nooy dundee ci wàllu lekk ak yëpp dindi woo ci dara sew sexuelles yooyu ñu dafa bàyyil mu war laa amal njariñ kon bu yàggee da nga leen feebarloo benn mën na caa fësaat ñu daan ne kii kat feebar hémorroïde ba ko daloon opéré woon nañ ko dafa dellu siwaat fekk demewul noonu dañoo dindi woon ya feebar bàyyi la fa ya normal waaye càggante ak ñàkk respecté régime bañ la wax moo war a peut nit ki dem ba àgg ci foo xam ne nii dem yu sosaan yooyu mën naa daal di defaat fa yu njëkk yi jaaroon. kon ginnaaw ba nga xamee ne tënkal nañ leen waxtaan wi ci lan mooy feebaru suuf yi nga xam ne moo am de waxtaan bu yaatu lool ci feebaru hémorroïde dañ leen di dikkal ci yeneen jàngoro yi nga xam ne dafay dal ci suufam te ñu ci bari comme du ñu seet du ñu ñoom dañuy jàpp ne lépp luy dal suuf rek la muy njumte lu rëy loo xam ne moo indil jafe-jafe malade yi indil jafe-jafe docteur yi nga xam ne moom itam bala ñoo jot malade day fekk mu tàdde lool bi ci jiitu bi ñuy njëkk jël moom ngeen gis ci dessin numéro numéro numéro G ñu koy wax abcès loolu ak tab la abcès nit dafay taab ci suufam taab gi ni muy feeñ mooy di def aw doñ yi boo xam ne day jékki-jékki di metti rek saa bu metti lool sonal ko ba du mën du mën a toog benn place boole ko yaram wi tàng jër dégg nga tab mën na am ci moom ñaari fan ñetti fan ñeenti fan te du ko jiitu mus ko war a am loolu koo gis ci sa suuf mu ànd ak tàngoor dem léeg ba sa yaram sa sam xel di tey nga bëgg a wàccu ñàkk appétit sa kanam sensé daal di ne kanam gu xaw a gu xaw a xëjam kooku na daal dem ci docteur mu seet ko ndax taabu suuf des ko war a opéré suñ ko opéré bu bu demee yàgg day bënnal boppam su bënnalee boppam vidéo génnee dëtt ju ñuul kukk ju wala wala mu nekk dëkk ju ju dëtt ju marron xeeñ xunn boo xam ne kenn du fa mën a boobaa xamal ne loola taab la du hémorroïde taab googu nag su dem ba wér mën na joxewaat beneen feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax fistule anal mbokk yi ginnaaw fistule anal boobu nga xam ne mi ngi ci suñu dessin numéro G bi ñu nekk troisième position ñëw nag ci feer bu doy waar moo nekk ci dessin numéro e. feer bu doy waar boo xam ne war na tax képp koo xam ne dafay jàmbat feebaru suuf mu dem hôpital docteur ba koy recevoir na teg kersa gi fee expliquer la ko war a def tëral ko ci taabal sol gant dugge baaraam ci suuf xool ko ndax képp koo xam ne yaa ngi faj émorite defuloo loolu mën ngaa loolu nit ëllëg te loolu bàkkaar bu rëy rëy la ndax li ko waral mooy feebar boobu mooy feebaru cancer cancer dafay dal nit ci suufam lu yomb la te dafa ànd ak développement nit ñi lu gën a am am am koom-koomu àdduna feebaru cancer di gën a yomb canceru suuf di gën a yomb ci ñoom ndax bokk na ci feebaru canceru suuf yi li koy gën a joxe mooy di dundee yàpp bu bari bu njëkk France moo doon champion du monde ci feebaru canceru suuf ndax dafa bari woon lool bu jàpp japonais yi topp ci Afrique dañu ko daan dégg daanaka léegi nag ak xéewal yi dugg ci suñu réew nit ñi di lekk yàpp lu bari tax na feebar boobu mu ngi yokk kon nañ ko bàyyi xel lépp du hémorroïde feebar boobu nag mooy feebaru bi nga xam ni day dal nit muy faj-faju cosaan wala muy dem ci docteur yi docteur yooyu xaw a sàggan seetuñu ko nañ ko war a seete mu nekk ak moom ñu naan ko hémorroïde mu la dal muy faju di faju di faju ba àgg foo xam ne nii suuf ga fàtt na complètement mu doog a ñëw ci loxoy hôpital su dikkee loxoy hôpital docteur bi du mën a taxaw jëlub rajo di wax nit ñi la ko dal la muy def mooy malade bi la ciy waxal wala benn mbokkam yam foofa malade boobu nag docteur bi dutu ci man dara day jéem ba sonn feebar bi dutu ko jéem a mën a dindi lam ci mën a def mooy defal ko opération bu ñuy wax dérivation boo xam ne butit gi lay génnee ci wetu ci biiram ci wet ga mu mën a dem wanag su ko defee feebar mu bàyyi ko muy dox ba suñu borom ñëw ak dogalam loolu nag su amee nag ka xamul lu xew dana moom de hémorroïde di ko yóbbu woon mu dem hôpital ñu opéré ko mu faatu wala moom de bañ ko opéré hémorroïde ba tey nekkatul góor moom de bañ ko opéré hémorroïde ba tey amatul njariñ ci la jógee léegi feebar di tëdd tëdd ba xëy dem ba xëy génn àdduna fekk loola hémorroïde dalu ko woon feebaru cancer la fa lillaahi alhamdi wa shukur nañu dimbali ci am sa feebar ne hémorroïde la te demoon hôpital ndax bu dee cancer musiba naru lay nii muy feeñe gi ñi màndal gi yii la ku ko gis na nga dem ñu seeti ko bul ni mukk hémorroïde la mooy ay ñandaxiir yu génn ci ci suufu nit ki te xaw a bari wala lu jekk-jekk ne wëq mel ne laa lay mbëb loolu mën na nekk sax cancer bu boutique gu mag wala nit koo xam ne day gis deret ci toq tout le temps rek bu mu ko jiiñ rek hémorroïde bi yam foofu mën na nekk cancer wala nit koo xam ne ni dafa def li ñuy wax alternance jaare constipation nga xam ne léeg mu seere ñetti fan après biiram ndaw bu demee yàgg mu seerewaat ba ci yàgg biiram ndaw di ko def noonu loolu ci màndargay canceru suuf la bokk wala nit ki def li ñuy wax faux besoin nga xam ne day saf mel na ko bëgg a dem wanag waaye su demee dana nelaw ba sonn dara du génn la koy waral mooy cancer bu dafa def aw suux bu nekk ci suufam fatt fa dem àll yi war a jaar mu di ko yëg nag comme ay dem àll fekk suuf la bu bokk ci yaramam kon nit ki day sax fu mu toll waaye su demee ba nag day puus ba sonn dara du génn màndarga yii mooy màndarga canceru suuf mooy duy génn mel na ñand xir wala lay mbépp wala ngay gis deret léeg-léeg wala ngay léeg nga seere léeg-léeg sa biir daw wala nga yëg da nga bëgg ne maanaam te soo demee dara du ñëw loolu soo ko seddoo seddoo seetli ko mën na nekk feebaru canceru suuf kon nag li ci gën mooy ñu bañ a jël lépp jiñ ko hémorroïde ku am feebaru suuf na nga dem ci nangu na ko sëñ Sàmbay woon bàyyi ko sa bopp mu seet la la ca war mu wax la ko maa ngi jéglu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf kon nag mbokk yi maa ngi tënk waxtaan wi fii di fàttaliwaat ne tey dañu waxtaane waxtaanu suuf wax nañ ci feebaru hémorroïde yi wax itam ne suuf du hémorroïde dong nga fa nekk hémorroïde moo gën a am yërmande ci feebaru suuf yëpp moo ci ëpp yërmande kon yi ci gën a bi ci gën a metti mooy fissure anale mooy fett fett boobu bi ci gën a lakkale dëkk nit ki li man ñaar fukki at mooy fissure anale taab goo xam ne dafa dem ba bënn bàyyi fam pax nit fu mu toll dëkk sobe bi nga xam ne moo ci gën a doy waar mën a rey nit lool mooy canceru suuf ndax ñun de mosuñoo gis hémorroïde ku mu rey mosuñu ko jàng ci téere kon bokkul ci li nga xam ne jàpp nañ dana rey nit canceru suuf nag lu mën a wér la buñ ko seetee ba xam lu mu doon danañ ko mën a faj ñaare ndax dañuy def li ñuy wax biopsie buñ ko seetee ba jàpp ne moom la dafa am lu ñuy compati ca jàngoro yi lu toll ne ab ñebbe lu gën wala wala fepp ceeb yóbbu ko ci laboratoire yu mag ñu seet ko nañu canceru suuf la wax ñu ban façon la ci ndax am na ñaar yu ci gën a fes bu ñuy wax carcinome épidermoïde boobu radiothérapie moo koy faj appareil yooyu yaakaar naa léegi Sénégal dellusiwaat na alhamdulilah bu ñu ko cee dee faj muy lakk suuf gi mën na ko traité ba mu wér. wala mu nekk bu ñuy wax adénocarcinome su boobaa dafa laaj opération suñ ko teelee gis mas na koo opéré dindi ko complètement mu wér nit ki dem yoonam bu ñu ko yeexee gis nag mas na ko opéré itam nit ki wér waaye mën na caa jóge maanaam dutu demati àll ca suuf. foofu lañ ko tëj complément ndax dara mënut faa jaar waaye day dem àll ci wet ga bu fekkee yeex na ko faj mu ëpp itam mën na àgg foo xam ne jàngoro yi kenn dutu ko laal des koy génneel boutique ga wet ga rek ngir mën a dund waaye moom fa mu mujj moom ko ne xam na ko kon nag daal feebaru suuf moom lépp du hémorroïde hémorroïde baatu tubaab la kon du ko jug man cee wax du ko jug man koo faj te hémorroïde ku ko bëgg a faj ak feebaru suuf kersa amatu ca nangu rek fa am ak docteur bu yiwee bu ànd ki teggin buy leeral malade la muy def seet la xam ne li li ki muy seet mën naa nekk waajur ki muy seet tam ëllëg mën naa nekk moom mii di ko set loolu yaakaar naa su amee rek kon bu soobee yàlla jàmm rek kay am ñu ngi jéglu bu baax ci kàddu yi lépp loo xam ne wax nañ ko ci te demul noonu ñu ngi koy bu baax te xam ne dañ ci bëggoon rek jàngale wala séddale xam-xam ndax ëpp ñu kenn xam-xam te bu booba léegi ñu bëgg cee waxtaan itam yeex gee waxtaan itam lii rek moo ko waral day loo xam ne dafa xaw a naqaree waxtaanee lool waaye alhamdulilah ci sama domaine la bokk. lépp loo xam ne leeru ci bu ñu ko laajee incha allah ñu tontu ci ñu ngi jégalu lu baax na ci guddaayu audio yi jërë ngeen jëf.